mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ki mën faj bu baax ak ñaan gu wér di defarit produit yu baax kookoo di Serigne Cheikh Konté ñu gën koo xam ci Cheikh borom produit yu baax yi nee naa la nga bëgg ku la seetal demal nga seeti Serigne Cheikh Konté yi ñaan dina seet boole si faj ba mu wér waaw waaw lu gis faj ba mu wér laa la wax de déglu ma bu baax mbokk mi ma wax la Cheikh feebar ya muy faj yow mi am jabet bañ ñi la du wér demal nga seeti Cheikh yow mi amee feebaru AVC ba paralysé demal nga seeti Cheikh yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti seex mu tàggale la ak moom yow mi amee prostate demal nga seeti seex nga amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku seytaane jàpp wala ku rab jàpp boo seetee seex mu dindi la ko ndax yàlla da koo may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am lu la leer mën ngaa jokkoo moom si numéro téléphone yii. muy 78 397 65 93 78 397. 65 93 Serigne Cheikh Konte ya ngoog nee naa la faj seen aajo mooy li koy téel yow mi tawat dem fu ne bañ ñi la mënuñu laa faj boo seetee seex mu tàggale la ak sa tawat tàggale la ak sa jàngoro Serigne Cheikh Konte yi nee naa la wàllum faj ak ñaan ak lii di seet yàlla da ko seet allahu akbar Thank you. bopp di sant di fàttali sama bopp di fàttali mbooleem bopp tey bi yëpp xam ne bisu tey bi moom bisu mbégte la ci bisu naqar ñii fi mu tàkkee def man xar ndax àdduna moom mbokk yi ñoo ku ci rek ak sa yënguwaay ak sa tolluwaay noonu rek ngay doxee waaye dañuy war santal yàlla ci bu baax ci xëy na moom nag ku bëggee ko amee woon noonu mën naa

te di ci dundal sunna seen bopp sallallahu alayhi wa sallam tey jégalante bàkkaar yi ñu ñu fàttali ko suñu borom ci nga xeewal bi ñu def ci ñun ak tey nga def sant yàlla nag weesu wu na boo jàmm yàlla te teg ko ci sunna seen bopp sallallahu alayhi wa sallam te moytu ne ko tere yi suñu kenn kàttan tontu ndigal bu baax te moytu ci ne ak tooy tooy baax ginnaaw loolu maa ngi déggal sama bopp di dégg mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ki mën faj bu baax ak ñaan gu wér di defarit produit yu baax kookoo di Serigne Cheikh Konte yi ñu gën koo xam ci Cheikh borom produit yu baax yi nee naa la nga bëgg ku la seetal demal nga seeti Serigne Cheikh Konte yi dina ñaan dina seet boole ci faj ba mu wér waaw waaw lu jafee gis faj ba mu wér laa la wax de déglu ma bu baax mbokk mi ma wax la seex feebar ya muy faj yow mi am jabet bañ ñi la du wér demal nga seeti yow mi amee feebaru AVC ba paralysé demal nga seex yow mi amee tànk yu miti demal nga seeti seex mu tàggale la ak moom yow mi amee prostate demal nga seeti seex nga amee goitre wala enzyme boo seetee seex mu tàggale la ak moom nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga néew kattan ba mënoo sa soxna dara boo seetee seex mu jox la garab goo xam ni yaay sëy ba doyal rek bàyyi wala nga amee awra bu gàtt wala awra bu tuuti boo seetee seex mu yokkal la ko ba mu doy na nga bëgg ku ñuy sànni kort wala ku may si wàllum ñaan seex nag la mu làmboo lépp làmmiñ mënu koo tudd képp ku si bëgg am lu leer mën ngaa jokkoo ak moom si numéro téléphone yii muy 78 397 65 93 78 397 65 93 Serigne Cheikh Konte ya ngoog nee naa la faj seen aajo mooy li koy téel yow mi tawat dem fu ne bañ ñi la mënuñu laa faj boo seetee seex mu tàggale la ak sa tawat tàggale la ak sa jàngoro Serigne Cheikh Konte yi nee naa la wàllum faj